donc euh, Pastef Médina comme nu mu koy doxalee week bu ne donc euh, day def ay série de manifestation disons série de massification ak installation de de de cellules donc samedi dernier le président Ousmane Sonko donc dafa décidé woon def visite privée ki nga xamante ni mooy xaritam di suñu suñu grand Lamine Ndiaye vraiment donc ñu koy rafetlu bu baax a baax parce que vraiment loolu en tant que Médinois donc gis suñu président koo xamante ne Médina la soqeekoo mu jaral ko mu déplacé wu vraiment loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax donc aussi euh, euh, il a profité de l'occasion pour jaar xool waa Médina disons Pastef Médina li ñuy liggéey à travers notre installation de cellule jaar na fa macha allah encouragé ñu te ñu si kontaan bu baax a baax a baax parce que vraiment loolu daf ñuy motiver encore une fois bu ñu gisee suñu njiit ki nga xamante ni mooy suñu leader ñëw lu toll ni installation de cellule cellule Kusum plus précisément mu ñëw fa def présence jël parole wax encouragé ñu loolu vraiment daf ñuy doole te daf ñuy gën a dëgëral si suñu taxawaay bi ñu nekkee di ko def semaine bu nekk si biir si biir Pastef. yaa ngeen def ay installation cellule euh, moom c'est la première fois su ma juumul mu ñëw mu ñëw euh, mm-hmm. mm-hmm. teewe lu ni mel. Mm-hmm. or euh, est-ce que jàpp ngeen ne tey fi Pastef tollu ci réew mi wala doole bi mu am ci wala fi mu toll ci ci ci Médina tey jaadu la président Ousmane Sonko bàyyi ba pratiquement dernier mois yi di doog a ñëw waaw non mun naa ne euh, le président Ousmane Sonko il est le leader national. donc vraiment mooy koo xamante ni fépp Sénégal parce que fépp dañ koy soxla. donc te gis naa ni euh, su ma juumulee bii. mooy première présence am si installation de cellule si benn coordination donc loolu yaakaar naa ni euh, waa Médina dañ koy ndamoo sax parce que vraiment le président Ousmane ko déplacé aussi installation de cellule lu rëy la euh, mën naa ne euh, pour répondre à ta question le président Ousmane ko jaar na fi jaarati fi booy xool élection législative yi la mujj donc euh, élection locale là c'était sur le plan national. voilà je veux dire maanaam mm. euh, si parti bi nga xam ne moom mooy mm. moom la jiite muy mm. Pastef. Euh, c'est la première fois su ma jumul mu ñëw fi quoi. waaw wala aussi dafa dafa bëgg a profiter aussi procès bi nga xam ne moom la jëm pour mën a wax ak waa Médina yi voilà. non mën naa ne comme ni ma la ko waxee boo mu bàyyi woon ma daaneel mhm. le président Ousmane Sonko jaaroon na Médina wax ak waa Médina bien vrai que c' dans le cadre mhm. de la campagne législative mhm. malgré que nekkul woon candidat moom en personne mais quand même il a tenu à passer à la Médina def artère yëpp daanaka Médina la gënoon yàgg sax donc pour wane na ban ban gëdd le président Ousmane Sonko jox waa Médina a fortiori samedi encore une fois mu ñëw présent si li nga xamante ne mooy installation de cellule donc vraiment foofu du ñu wax ni li ñuy jàpp ni rek mooy Ousmane ko jox na gëdd gëdd gëdd bu baax a baax waa Médina te gis na liggéey bi nga xamante ne Pastef Médina mu ngi koy amal si biir Médina mhm. donc euh, actuellement ngeen toll ci wàllum euh, animation partie bi installation cellule yeeg yooyu mhm. Mhm. Euh, mais dafa am loo xam ne tey mënuñu toog fii te duñ ko waxtaane muy taxawaayu Pastef biir Médina wala tolluwaayu Pastef biir Médina parce que ñëpp xam nañ ne am na coow lu fi amoon diggante euh, Ousseynou lii moo nekk la coordonnateur wala Demba Diouf moo nekk le coordonnateur mm-hmm. tey les sénégalais ou bien waa Médina soxla nañu xam mm-hmm. tey lan nga ñu mën a éclaircir si situation boobu nan la demee ba ba taxoon euh, xëcc ko bi am si diggante Ousseynou Ly ak mm-hmm. euh, Demba Diouf waaw Pape di la remercier encore bu baax a baax si question parce que jaadu na ñu ñu taxaw si question boobu noonu leeral parce que ñu ngi wax xëccoo ñu ngi wax xiiroo ñu ngi wax ŋaayoo amul suñu diggante Pastef Médina amul xiiro ak ñaayoo on est une famille on demeure une famille te comme ni ma ko waxee Pastef Médina demoon na ba benn instant benn moment fu mu toll soxla woon na ñu renouveler soxla woon na ñu defaraat soxla woon na ñu dëgëral taxawaay donc si lañ dem assemblée général comme ñëpp ni ñu ko xamee n'est-ce pas di doxal donc te ba tey assemble général macha allah euh, génn nañ ci si jàmm te instant bii nii ñu ngi continuer liggéey à titre d'exemple lan moo tax ma ne la euh, Euh, xëccoo ak ŋaayoo amul Pastef Médina parce que gars yi dañ koy wax rek mais amu si lu tax lan moo waral frustration démb jëm wala lan moo tax kenn gisatu ko si mënul euh, ñàkk massification yeeg animation parti bi xam nga mënul ñàkk xam nga dafa di euh, toujours boo defee ay boo jëlee ay ay ay ay décision mhm. bureau bu defee ay choix xëy na dina am ñu muy neex xëy na dina am ñu mu dul neex mais l' essentiel est que liggéey bi si boppam ossature liggéey bi mu continuer di doxal à titre comme ni ma la ko waxee avant ñuy def suñu renouvellement boobu noonu on avait installé que quatre cellules avant ñuy def renouvellement boobu te ñëpp xam nañ ni cellule mooy li nga xamante ni mooy dëgëral taxawaayu parti bi si biir Médina te après cette installation on en est par exemple à notre neuvième cellule n'est-ce pas donc daanaka ñetti cellule rek moo ñu dese pour ñu daj ASC e yëpp si biir Médina te weekend bu nekk. weekend bu nekk Pastef Médina à travers la JPS à travers le mouvement des femmes à travers la coordination. day amal ay activités de massification. booy xool programme wër nombre bi fës nañ si trop trop macha allah. donc ñu siy def liggéey bu am solo booy xool booy xool commune Dakar yi Médina am na si taxawaay bu am solo si programme boobu te programme boobu c'est un programme national pour pour te dire que rek encore une fois liggéey bi ñu ngi continuer def ñu ngi taxawal cellules ñu ngi def ay massification te ñëpp gis nañ. taxawaay bi nga xamante ne Pastef am na ko ci biir Médina donc euh, ay frustration mën ta ñàkk comme dans toute organisation mais liggéey bi macha allah mu ngi continuer te dañuy ñaan yàlla mu gën a continuer di ñaan nag ñëpp ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi mu gën a jëm kanam. Euh, est-ce que aussi jàppoon ne tey euh, Pastef ak doole bi nga xam ne am na ko tey. Mhm. wala seen leader. Mhm. am na ko mooy le président Ousmane sonk am na ko au niveau national. Mhm. bu ñëpp di wax nag di wax ne opposition bi actuellement moom mooy le le le chef de file de mm-hmm. l' opposition. Mm-hmm. est-ce que jàppoon na tey fii ci biir Médina euh, Pastef problème yooyu ma la problème yooyu ma la doon wax aussi. Mm-hmm. taxul ñu ñu bëri aussi euh, gën a xam taxawaayu parti bi ci biir ci biir gox bi. waaw bon comme ni ma la ko waxee. liggéey bi mu ngi continuer amaana comme ni nga ko waxee waroon na gën a ñoñ. waroon na gën a kii parce que le coordonnateur euh, on le voit pas au niveau de ki nga xam ne moom mooy coordonnateur euh, bu Médina. Mhm. Euh, on ne le voit que sur le plan national. mais mhm. aussi au niveau de la Médina mhm. est-ce que jàpp ne liggéey bi à la base dafa des. waaw bon suñu coordonnateur Ousseynou lii ma kay ma koy saluer de passage vraiment. dama koy dama koy jaajëfal. du parce que dañoo toog fii moo tax ma koy wax mais dafay abattre travail bu am solo si terrain booy xool GPS fu mu organiser. parce que GPS mooy ñi nga xamante euh, mooy comme fi ma bokk. mooy mouvement des jeunes si biir parti bi. GPS fu mu organiser ak fu mu munti nekk si Médina Ousseynou li macha allah dina fa def dina fa teg tànkam vraiment ànd ak ñun massifier. déjà loolu lu am solo la. parce que mu ngi mu ngi au au delà du plan national. mu ngi wàcc si base bi di liggéey te loolu. yaakaar naa ne lu am solo la si moom. Mm-hmm. ensuite moom comme ni ñu ko waxee nu lii dafa am dafa am yeneen responsabilité mm-hmm. au-delà d'être le coordonnateur de Pastef Médina mm-hmm. il est le chargé d'image du président Ousmane Sonko. donc dañ koy nangul des fois dina soxla. dem jege ji le président Ousmane Sonko en tant que son chargé d'image mhm. mais liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def au niveau de la Médina c'est-à-dire mu ngi koy def au niveau de la base mhm. dañ ci dañ koy dañ koy rafetlu man mhm. je très bien placé pour le dire parce que pas plus tard que la dernière fois ba ñuy installé cellule Koussoum vraiment man dama ko mujjee kii sax parce que dama ko mujjee yërëm parce que dafa dafa abattre un travail extraordinaire pour que cellule boobu a taxaw dëgg ko waxee amaana mën na am yoo xamante ne peut-être c'est à améliorer ay point yoo xamante ne c'est à améliorer moo loolu mais loolu dañ koy def rek dans le cadre du fait dans le fait que euh, Ousseynou li il est aussi euh, national entre guillemets donc niveau local niveau média euh, comment dire si présence am si média locaux yi xëy na comme ni nga ko waxee waroon na gën a ñoñ mais vraiment yaakaar naa ne mu ngi siy def liggéey bu am solo sur le plan Pastef à la Médina